a ah, sama xol sedd guy rek ci fekk gi ma fekk fii dama ñëwoon ci foire doon jënd ay garab léegi day joué fii ma ne xaaral ma jaar fi rek seddaan ko ndax xamee doom mu nekk ci waa boo xam ni vraiment mu ngi ciy góorgóorlu da nga ñëw war a ñëw pour encourager ko moo war sama teewaay fii ah dama kontaan rek bi ma yëgee mu mu mu tàmbali ndax mom warna mana way li ndax fu mu jógee motax ndax dafa nekkon ak magam Samsir Mbaye Diko ko këru moo ko ci li mu dem nak ba sunu borom wërsëgal ko li mu nekk ci kon dama ñaan sama ñaar doom yoy yalla nañ tek ci li dore la ñaan ndax seen bëgg-bëgg la waaw te musique day yeete musique day ah, mu mu gën a góorgóorlu rek te continuer yaram ak tegginam rek te fonk nit ñi nag ndax nit ñi ñooy mbir mi <clears throat> noo mën a mel bul teer yeeg sa bopp raamal ndànk rek bëgg nit ñi bëgg ñëpp jox ñëpp war ma boo ko defee rek sunu borom da lay dimbali waaw loolu laa koy conseillé